salaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV ginnaaw bu ma leen nuyoo di leen jaajëfal bu baax tey samedi 23 janvier 2021 moo fas yéene indil li gën a fas si bopp xibaar yi laataa loolu nag maa ngi leen nuyu Assane Wala yow ma feggoon. Ndeye Mbacke maa ngi lay fay am mbégte jàkkaarloog internet yi dikk pour euh, taaxir euh, jottali leen li gën a fës ci yéen kaay yu làmb ji tey. li ci gën a fës nag tey jii samedi 23 janvier 2021 ñu am naqar ak tiis suñu papa Pape Boy Bambara génn àdduna. dëgg la à l'âge de 78 ans plus tôt dëgg la Ndeye Mbacke ni nga ko waxee noonu la journal suñu làmb tey xëy tàggee ñu ab nouvelle bu naxaree naxari dese Boy Bambara nee na nag bi mu génn àdduna mi ngi am 78 ans moom mi ngi juddu en 1943 foofa si quartier bi naan ñaay cokkeer ca Dakar. mu ngi dugg ci làmb en 1970 ba booy bambara bi mu génnee àdduna nag ba suñu làmb jox na ay kàddu ci ay nit ñu réagir ku ci mel ni Ipo Ngari Bekay Mbay wala Duudu Jaan Jeko Ipo Ngari moom li mu wax mooy que ne booy bambara foo ko daan gis rek ree reeja ngay gis nee na ku bëri woon jàmm la da doon ree rek nee na génnu àdduna bi grosse perte la pour la lutte Bekay Mbay moom nee na idoolam moom moo gaañu gën idoolam moom koo xam ne nii daf ko bëggoon lool kooku moo génne àdduna tey Bécaye nee na également Boy Bambara fierté Grand Dakar ak ñaari tëri la woon du jànje kon moom moom nee na euh, grand euh, lit euh, askanu làmb ñoom ñoo perte nee na coach la woon yàgg na coaché ay mbër ci lutte olympique moom loolu la wax grand perte la du ci làmb dongo ci askanu Sénégal léegi képp la parce que papa booy bambara boo ko tuddaan mhm. xel dem ci jëf ju baax ju doon def jàmm ju bari jëm am loolu dëgg la foo ko gis yaa ngi gis ba ñii dox jàmm ak salaam dëgg la Ndeye Mbacke dañuy jàll si nga xam te mooy suñu làmb suñu làmb xëy ki xëyee ki xam te mooy papa Diop mu ne combat entre Siteu ak papa Sow gis na ci bagarre mystique ak technique maanaam xeex dina fa feeñ cubukaay di di mystique daal dina saf dafa gis technique ak xarañte aussi. dëgg dëgg la Ndeye Mbacke Pala Diop moom mooy manager u Reug moom nag dikk na euh, décortiquer combat bi war a dox ci Siteu ak ci Papa wax na ci wàllu bagaar mystique technique ak force. nee ne wàllum bagaar moom Siteu dafa complet ci wàllum bagaar nee na Papa moom dafa coriace loolu la wax mystique bi nee na si Siteu du fooye mystique moom koo xam ne nii mystique moom du ko fooye benn yoon mais nee na euh, moom accordé wul benn importance bi mystique moom nee na kii wu ko joxu ko benn importance bi bu bëri côté technique euh, moom nee na Siteu benn nit def na MMA te loolu da koy servir mais Papa Sow moom kenn naatablewul technique am ci biir làmb côté force nag nee na Siteu moom dafa liggéey doolem moo tax mu am force bi mu am nee na Papa Sow la moom naturellement dafa am force. ci fan jëm nag mooy Singapour doomu Sénégal ba am ndam démb. oui. waa suñu làmb xëy na Reug Reug mais mais KO son adversaire en moins de deux euh, noonu la ko waxee ñoom euh, xibaar bi neex na nit ñi Sénégal yëpp démb. mooy Reug Reug mu dem daane wala euh, KO à la Pierre Alain Ngalani ci moins de deux deux minutes noonu la ko journal bi waxee mais nag euh, après bi mu gañee euh, kii àdduna ci journal bi nee ne lii ñëw moo dàq li weesu am na quatre combats yu des te quatre combats yooyu yëpp ci la nekk di liggéey pour def yooyu yëpp mu gañe leen kon daal am nañ yaakaar ne Reug Reug def na ay jéego yu am solo am solo ci MMA te li lii des moo dàq li weesu. macha allah ci loolu dem Bira Sène président du CNG nee na Reug naa dem fu sore sore sore sori sore sore wax nga dëgg ndey euh, Reug Reug bi mu gagné ba pare suñu làmb dafa jox kàddu Bira Sène mi nga xam ne moom mooy président du CNG moom ba mu ko joxee kàddu nag Bira Sène nee na Reug mën na dem fu sore sore sore ci MMA bi ndax euh, li mu fa wone euh, daal na xel de telle sorte que sénégalais am naan yaakaar ci moom ne mën na yóbbu Sénégal fu sori ci MMA bi nee na am na fierte trop ci Reug Reug mi gagné démb Alain Ngalani am na fierté ci moom dañuy ñëw fi nga xam ne mooy arène nationale. Mhm. Luc Nicolaï organise le choc royal Modou Lô Ama mu yóbbu ko fin saison presque vingt cinq janvier vingt cinq juillet deux la ko yóbbu. loolu la journal bi xëy xëy xëy xëy waxtaan wax euh, informé nit ñi tey. daf ci euh, euh, seex ak waxtaan ak benn source noonu la ko wax benn source anonyme mais li xam le mooy li Nicolas jël na date date vingt cinq juillet fas yéene fa tëgg combat Ama Baldé ak euh, Modou Lo combat royal boobu nee na nag date boobu choix la rek daf ko jàppale gum léegi di xaar état bi wala CNG ñu confirmer ko moom loolu la ci wax ci combat boobu. loolu la ci war dañuy dem fa nga xam ne mooy mbuur géej fekk fa exploit des arènes bombardier mi xëy félicité ki nga xam ne mooy Reug Reug nee na kontaan na ci ndam li nga xam te ne nii mooy am na ko mhm. après bi Bécaye bi Luc Nicolaï defee conférence ak Modou Lo euh, na également datu conférence de presse Ama Baldé moom nee na février bii di ñëw la bëgg Ama Baldé itam jàkkaarloo ak euh, journaliste yi mais ni nga ko waxee bii Reug Reug euh, daane Alain Ngalani journal suñu laam jox na addu Bombardier moom réagir na félicité na Reug kontaan na ci moom te yaakaar na ak euh, Reug bi na sori trop ci euh, MMA bi. ka ñibbisi fekk fi naqar mooy loolu lion de Guédiawaye Balla Gaye 2 à Dakar depuis jeudi. dëgg la di nga ko xamee woon Balla Gaye semaine yëpp mi woon Màkka pour Umra. mais journal bi nee na ñibbisi na depuis jeudi boobu ba mu demee Umra nag àndoon na fa Aziz Ndiaye Baye Ndiaye ak Massata ba mu fa demee li fa ñaan sénégalais yi xam nañ ko daane Bombardier ah, terminé en beauté carrière am loolu la fa ñaanoon mu ñëw fekk naqar nag xam naa ne mm-hmm. léegi ci kanam dañ toppaat ba tey dañu ñëw record MMA mu ne Alain Ngalami Alain Ngalami en moins de cinq minutes oui noonu la ko record waxee euh, nee na euh, Reug Reug dompte le jag na Cameroun bii di Pierre Alain Ngalane dikkaat na ci combat bi nee na daane na ko mais Reug Reug réagir na après tamit ci journal record nee na li ñëw daal moo dàq li weesu. na li ñëw mooy dàq li weesu yàlla na ko yàlla moo amiin record ba léegi ñëwaat na ci dese bi nga xam te ne mooy dese naqal bi ñuy am ñun ñëpp. Mm-hmm. di waaw comme ni ko journal yëpp defee waaw ñëwaat na ci dese bi tàggee nañu ko. nee ne la reine euh, booy Bambara tire sa révérence noonu la ko waxee mu ne Baye Boy Bambara gaañu na démb ci këram gi nekk parcelle enterrement bi nag ñu ngi ko vrai prévoir tey ci samedi bi à partir de 15h ci sëgu Yoff noonu la ko journal bi waxee. noonu la ko journal waxee yaakaar naa ne fii la yemoon ci information bi di leen jaajëfal mbokk internetu Leewtoo TV di jaajëfal équipe bi jaajëfal. yow mi ma a tey tey moom mbay baabu ko dafa maa sori. waaw <laughs> mbay tey waaw ñu koy ñaanal yoonu jàmm te mu ñëwaat ci jàmm fekk ñu ci jàmm ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax di leen jox dig daje lundi prochain incha allah. di leen remercier ah, di ñaanal ki nga xam te ni moo fi bàyyeekoo di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana yu kawe kawe yi di leen jaajëfal <laughs> di leen jox dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV.